réew nga vulgaire nga waaye yaa gañe ndax kenn ñuus na ñaar loolu moom xam naa ko ci la fa xewoon man xaw ma ko man je ne rab man duma déglu rab duma ko seetaan du ma ko sax bàyyi xel mais yaa gañe ngaa ka ñuus nga ñaar man moom loolu nangul naa la ko yaa gañe déglu naa sa benn son bu yàggul nga naan maa day diggi ndakaaru may borom ndakaaru ngaa ka vulgaire nga su may jonkoon maag sa baay ñooy jonkona ndoor a a a ngaaka rabato <laughs> ngaaka rabato rabato rabato ngaaka vulgaire nga vulgaire nga soo waxee ñu ne ñee ñoo koy saaga moo tax mu no non non non non non vulgaire na vulgaire na vulgaire na maa day diggi ndakaaru yaa day diggi ndakaaru day moom rafetu day du wax daal day daal du son ngaaka changé leen term bi waaye ngir yàlla waaw waaye nag kenn ñuus na ñaar quand yaa gagné ndax neexul ba neexul mais jamono jiñ toll nii moom ah am nga paar nag ci yëf yi nag waaw macha allah donte li ngeen di def man góondiwu ma man dara safuma